asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo RMB TV ñu ngi leen di jaajëfal ci topp bi ngeen di topp RMB TV démb campagne législative yi commencé na président Ousmane Sonko njiital Pastef bi daal di doore fi nga xam ne moom mooy Tivaouane daal di terale fi nga xam ne moom mooy Thiès waa Pastef mobilisé mobilisé bu am solo daal di fekk ji président Ousmane Sonko Serigne Bara Ndiaye Serigne Thioro Mbacké nekkoon. fële ca Mbàkke ki nga xamante ni mooy Abbas Fall nekk fi nga xam ne moom mooy euh, Dakar président Ousmane Sonko nag démb waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, militants yi waxtaan bu ama am am am solo duñ def lu dul euh, dëgtal leen waxtaanu président Ousmane Sonko njiital Pastef bi premier ministre bu Sénégal te dellu si waat incha allahu rabbi lépp loo xamante ne day jëm ci wàll campagne yi dina jàll fi nga xam ne moom mooy RMB TV ñu déglu président Ousmane Sonko. en première journée de campagne bi nga xol li Sénégal yépp ñi duñu sen morom de xam ni duñ sen morom. nit bañ bañ war nga ni politique la fi budget ci fiscalité ci finance publique ci pétrole ci gaz ci zircon ci accord de pêche ci politique agricole ak yeneen ak yeneen ci la commencé nek un débat kon nak lolo boudé demb démb nek opposition lañ ko mënon tay nak bi yoré yoree nguur war nañoo yomb motax mo bëgg suñuy meeting xumbay bi baxna na bi baxna animation baxna ndax politique nak loolu da ci bok waaye nañu fexé ba suñuy def suñuy ndaje. kenn ku ne na ci jëlee njëriñ ci fa ñu fekk réew mi ak fa ñu ko bëgg a jëmale loolu mooy coppite ci politique boo seetee juróom benn weer yi weesu bi Sénégal sosoo ba léegi kenn mësu sa gis nguur gu doog a toog newul sax salaamaaleykum ñu ne li ñu fi desoon ci opposition wala ñuy woote seen bopp opposition ndax keroog le 17 bu soobee yàlla dinañ xam ni opposition amu fi yi la président Ousmane Sonko yëkkati moom njiital Pastef bile ci ay militant ci parti bi nga xamante ni moom mooy euh, Pastef Barthélémy Dias euh, démb fële ca dakaar euh, ak waa sàmm sa kàddu daje nañu fa yëkkati fa ay kàddu yu am solo ki nga xam ne moom mooy Barthélémy Dias nag yëkkati na ay kàddu yu ñaaw a ñaaw teg ko ci président Ousmane Sonko ñu dégtal leen leen kàddu yi te dellu suñu société ñu naroon nangu tey ay fen parce que wax ji duñ ko day parce que dafi am benn wax dëgg mais xalaat bu ba taxaw dem Dakar Arena jël fa micro ne lu mu 83 sénégalais dee nañu ci ay fenam ak ay tappaleem koku nak yéen askanu Dakar aw ma ci xel ñaar am ngeen fulla am ngeen fayda dama ne 17 novembre 2024 inshallah allah ñeef na saf sa Serigne Moustapha Serigne Mustapha a été de tous les combats démocratiques kon sëriñ Moustapha duma ci taxaw lu yàgg su ko wóoroon ne sàmm sa kàddu nekk ci ay tappale la nekk kon du ñëw bokk sàmm sa kàddu kàddu yi la Barthélémy Dias euh, yëkkati ci kanamu sàmm sa kàddu Papa Djibril Fall daal di koy feelu ca wet ba sant Serigne Moustapha nee na sàmm sa kàddu su nekkoon ci ay tappale lañu ñu nekk Serigne Moustapha du ñëw jàppal jàppale leen du Mbaw euh, mi nga xam ne moo nekkoon assemblée ancien député bi euh, nekk Benno Bokk Yaakaar démb woote nañu conférence de presse am na ay kàddu yu yëkkati nag euh, daal di koy jagleel ki nga xam ne mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko njiital Pastef bi

bu ngeen le président Diomaye démb xam nga li mu wax mënoon ko vocal baa SMS ko ñëpp jot waaye ñëw ñu discours à la nation Vous nga taxaw ben objectif nga am et loolu dama bëgg nit ñi ngeen parce que ñi le président de la république a désavoué Ousmane Sonko musuko désavoué c'est des manipulateurs du ñu wax dëgg. Les lu ñuy def ñoo ci parce que sos kese la ñuy def donc dans la journée Ousmane Sonko def na un tweet d'année on va apporter des correctifs parce que gis ngeen ki ñu nommé muy transhumant waa passé yi di jooy du Le président génn ci guddi gi daat ne non il faut que ñu comprendre xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo bokk. dañuy lëndëmal xelu doomu aadama yi kaddu yooyu la Abdou Mbow yëkkati moom élément benn bokk yaakaar boobu ancien député assemblée bi nee na kàddu yooyu ñuy wax euh, manipulation la ki nga xamante ne moom mooy na euh, Ndoye euh, doon dawal laal benn xale te jotul am li nga xam ne moom mooy permis seen waa kër demoon nañ seeti ki nga xam ne moom mooy xale bu góor boobu nga xamante ni moom la fiir ba tànkam bi am problème xale bi am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu dégtal ko te dellu siwaat

mbokk yi li leen indiloon ci seen xibaar ci RMB TV di leen jaa jëfal bu baax a baax ci topp bi ngeen di topp RMB TV ngeen di woy nag di partager suñuy vidéo boole ko tamit abonné laas notification bi dina tax vidéo buñ dugal ngeen mën ko jot boole ko di aimer di commentaire suñuy vidéo RMB TV daal askan bi dong la fi nekkal moom mooy télé Sénégal di leen koy seetaan bu baax a baax di leen jaa jaajëfal incha allah rabi bu subaak jàmm incha allah allah ci yeneeni xibaar jaa ngeen jëf